gannaaw bu député parti démocratique sénégalais daal di yëkkatee débat bi yóbbu ko fële ci assemblée nationale ngir nakarlu anam bi nga xamante ni noonu lañ daal di génnewee seen candidat bi di Karim Wade ci liste candidat yi nga xamante ne ni ñoo waroon dem ci jongante njiitu réew yi waroon am ci 25 février bi. loolu nag assemblée nationale daal di ko jël au sérieux taxawaloon benn commission d' parlementaire ngir mën a leeral mbir yi loolu nag ñoom ñi la génne nañ bataaxal di ci xamle ni boobu la liggéey daal di nañ ko jeexal li ci des mooy ñu ubbi ci benn information judiciaire ngir mbir yi daal di leer njege ñaale Karim Wade yi nag daanaka ñoom jotoon nañu xam ne ni mbir mi dafa am daal di soupçon ak corruption loolee nag ki ñu doon tuumal di juge conseil constitutionnel ak candidat bii di Amadou Ba moom mi nga xamante ni moom mooy candidat wu Benno Bokk Yaakaar. bile coow bokk na ci li nga xamante ni moo waraloon ba jiitu réew mi daal di woon jël ndogal ngir tuxal li nga xamante ni moom mooy élection présidentielle yi ndax jàppoon na ni ñu teg ci deru conseil constitutionnel ak ni mbir yi tëddee rafetul woon ñuy amal ay élection jamono ji nag information judiciaire bi la nit ñi di xaar ba xam ana fan lay mujjee.